IFOT, Institut de formation en hôtellerie restauration et tourisme IFOT ñu leen di yëgal suñu troisième rentrée bi nga xam ne ñu ngi koy amal début de la formation le 1er avril 2023 en cours du jour et en cours de soir IFOT Kër Massar bu ngeen ñëwee ba ci terminus 71 bi mu leen ci 33 877 05 09 ou le 77 980 86 84 77 230 56 38 il faut ànd ak yéen ci suñu troisième rentrée bi nga xamante ni nii lépp lu jëm ci wàllu restauration wala tourisme wala hôtellerie wala pâtisserie wala li nga xam ne moo di service mbaa kees ànd leen ci ak il faut ñu tàggat leen ci diire bu nga xamante ni nii diire bu gàtt lay doon am nañu ay formation accélérée yoo xamante ni nii diire ba mi ngi toll ci six mois IFHOT yemul foofu ndax IFHOT mi ngi tàmbalee ci niveau zéro kon niveau bu nekk rek boo ñëwee IFHOT daf lay jël ci école am gaaw leen gaaw ngeen daal di inscrire ci IFHOT Kër Massar mbaa ngeen woon ci 33 877 09 05 ou le 77 230 56 38 IFHOT di ànd ak yéen ci suñ troisième rentrée bi lépp lu nga xamante ni nii lu aju ci wàllu pâtisserie la cuisine restauration caisse wala li nga xam ne moo di service jokkoo leen ak IFHOT nombre de places place est limitée. Il faut daal